di kunal day garam di way ak a sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara ni moom naa ne ak cant war na bu baax a baax kon nag alhamdulilahi rabbil alamin nga xamante ne sëriñ Seex xalaat nga joxaat seen doom yi joxaat gone yi ñu organiser lii nga xam ne yow yaa ko féetewoo waaye yàlla def ci ndam lool ndax mënee nañ ko lool kon nag sant yàlla lool lañ ci def foog naa ne conférence bi moo doon ñu doon baax xadim yëpp ñu la ci ngeen doon li nga xam ne daanaka jot naa ko fekk nekk moo intervenir suñu Ahmadou Mbacké mi muy leeral ndax loolu daf cee am solo lool ndax yàgg na maa wax bari na ñuy def référence ci Minanul Baaxil dem te fekk na sax liiruñu ko wala bu ñu ko liiree dégguñu ko la ci ëpp sax booba bañ cay def conférence mu ñu ko liir ndax daanaka booba téere bi daal béykat booba ñu baree bari diiruñ eh, ko ba coona ba ca war eh, bañ di ko liir defuñu ko woon loo tax lii naa lu mat te defaat fereen la eh, ndax mu gën a mën a leeral loolu mën nañ cee xalaat sëñ Cheikh foog naa ne mas naa lay wax buñ demee ba. sëñ euh, docteur mi doon wax jëm ci affaire tarjama bi xalaat nañ bu ñu ko defee ba mu àgg ñu def lu mel noonu journée Cheikh Amadou Bachir boo xam ne nii téere bi rek la ñuy waxtaane euh, def ko ci région yi def ko feneen ak feneen loolu luy am solo la lii tey wane na ne ñëpp nga soxla woo xam ñëpp euh, ndax téere bi maanaam téere lu man di xew téere intellectuel la sëñ bi da ko bind ngir boroomi xam-xam leeral na sax junj bi ba yenni yi boo ko bëri bëggee a dem ci tóob sëñ mën naa ko jóg wala nangam nangam nga xam téere xam-xam la téere intellectuel la bés bu xóot a bu ñu ko yow nag leeral nga ko bu baax looloo xaj na ni ko ni ko defee talxiis <laughs> foog naa ne docteur eh, yaakaar naa ne dina dégg ci loolu lool ndax wane ne importance bi téere bi am ndax vraiment génne nga ko loolu nag lu am solo la ci domaine yëpp kon nag eh, loolu it yaakaar naa ne am na benn benn yoo ci wax yoo xam ne dañ ci tenir compte bu baax li nga ne woon mënoon na ñoo dem bay génnewaat eh, xam-xam yi ci nekk am na mu teg fiq boo xam ne dafa laaj taamuk seetaan ko am na domaine yu bare bare bare ba ci domaine adab yooyu yëpp xaj na mën nañoo dem ba ay nit jël ko ay thème nga xam dañ ko bi ngay wax ne danga ci cee boolewutoon xadis waaye ci mujj li nga ko ndax loolu dafa am importance ci téere bi ba nga xam ne yéen ñi nekk ci domaine xam-xam gis ngeen ne dëgg dëgg daanaka dutuñ ko jàng ci majalis yi loolu taxoon ma xalaatoon bi ñuy édité waa téere bi ci même ci édition yu jëkk yee sax ñu def génne mbooleem xadis yi nga xam ne Cheikh Abdoul Bachir génn na ko bel koo def ko mu xaq ci téere bi ba nga xam ne ëllëg si biir dana jàpp ndal kenn ku bëggoon a xam xadis yooyu xëy na loolu waaye gannaaw bi dabaatal nga ko wax ko loolu lu am solo la Euh, moom itam ndax euh, bi ñuy def taxriij bi sax bari na te moom itam xam naa xam na ci dara ay ay ay yum junj wala ay xadis yoo xam ne nii daanaka téere yi nga xam ne moom day def ishaara di ci def yooyu daanaka amatul junj ko looloo tax nag kon mu gën a am importance ñu génnee ci xadis yu bare bare ngi ci donc xam xadis génne woon loolu jar na sax def ko sara ko génne ko ñu nga xam ne day ànd ak livre bi ñu di ko euh, mu nekk espèce bu mul xàq loolu lu am solo la <coughs> li am solo daal mooy <coughs> jataay moom da nga am ak dégg bu yeesaat leer ci minarul baax te loolu mooy li am solo foog naa loolu lañ ci jublu kon nag wax dëgg yàlla def nga ko defin bu rafet euh, woo xam ne nii moo tax ma naan yaakaar naa docteur dana dana ànd ak yow ci loolu lool ndax ni nga ko gën a leerale xaj na dana tax ñaari yëf ñu baree bari gën a xemmeem ci seeti téere bi waaye itam ñu bari ñu nga xam ne jàngoon nañ ko it danañ ko gën a dégg dañ gën dégg téere bi ci mu gën a dégg Minanul Baaxil kon nag li nga def lu am solo la jërëjëf jërëjëf sëñ Abo moom xam nañ la ci liggéey bi ci waxtu wu ne kon nag euh, effort yi ngeen di def ñun ñëpp suñu ndam la ñi nga xam ne nooy seen i bàyyi di seen i ndam la euh, ndax euh, ku dem ba nga xam ne yéen yéen a ngi fi ci wetu xam-xam mooy mooy mën naa ne mooy sëriñ cëru sëriñ Basiru ngeen nekkee ci na ngeen ci nekk ba gone yu ndaw yi fekkaat leen ci loolu sant yàlla la moo tax ci njëlbéen bi ma ne li tàmbalee mooy sant yàlla ci lii kon nag sant na leen bu baax a Cheikh nii nga ko defe jiital gone yi ànd ak ñoom ci liggéey bi gën leen a wan yow te yàlla dogal alhamdulilah ñu mën ko loolu xaj na bu du woon occasion bu mel nii sax loolu du feeñ moo tax occasion bu mel nii nii baax na ci lool seen taxawaay ak seen kii ñu jéetal seen bàyyi ànd ak ñoom ci liggéey bu mel nii loolu muy lu nga xam ne jàpp naa ne lu war a continuer la lu am solo la li may kii rek wax ji du bari waaye dafa mel ne Abdul Hakim am na lu mu ci wax ci ndax loolu naroon naa cee wax ak euh, docteur ci affaire talxiis yeeg nangam nangam jàpp li Abdul Hakim wax laa gën a jàpp ndax téere bi bi mu ko koy bind da ko doon bindloo comme xattaat te te ku liir téere bi après sax daal di xam ne daal di ciy gis yi nga xam ne am na naqs ci moom ndax euh, bi muy àgg la fi sëñ Bachir di jóge kon toppaatu ko waaye boo gisee axta nax yi bari yi ci nekk loolu tax daanaa wax sax eh, ku mel ne eh, ñenn ñi eh, bu ñuy waxee ma ne leen xanaa da ngeen a da ngeen a jàpp ne kon ñu koy defaraat daal nga xam ne ñenn ñi même buñ ci gisee yàq ñu ko nangoo defaraat ma ne leen xanaa da ngeen defe ne borom ko def ki def téere bu may bii kay di def axta nax bi yàq kon nag loolu <laughs> nga xam ne kon mustawa boobu nga jàpp ne mën naa def talxiis yow ma ne amoon na ko ndax feeñ na ci masque yi lool bàgg ci lool xaj na léegi sax tane na kii waaye biñ ko jëkkee tàmbali daanaka man mi am naa at ànd ak nit yoo xam ne ni avant sax may dem keer yoo xam ne ni loolu lañ doon seet biñ daat daanaka yenn yàq yi loolu loolu waaye li wóor moom baatu talxiis bu ko waxee jàpp naa ne xaj na ni ko Abdul Hakim waxee lay war a doon waaye téere bi sëñ bi da ko doon jox muy bind dañ ko daan jox li nga xam ne moom lay wara a bind yow mi yan mu di ko bind bu dindee dellu siwaat ko ñu joxaat ko noonu loolu ko sëñ Bachir doon kon nekk ko bu talxiis amee xaj na sëñ Bachir moo boppam talxiis ne kooku sax ne ki nga xam ne moom moo moo defarul téereem sañ naa seet nu mu koy nu koy nu mu koy defaree waaye moom naar bi moom defu ko lu man di xew moom bind lañ ko ci doon def loo te itam argument yi Abdou Hakim andi yëpp wane ne sëñ Bachir da ko doon bindoo di ko fay te itam yéen ñëpp ñun ñëpp xam na ci aada ni mag ñi apprécié woon mbir lum naar gànnaar yi loolu sax mujj la nekk handicap ndax suñu wet gi ñu jàng euh, mbindum naari gànnaar loolu li gàllankooroon téere bi sax ci ñu bari man koo liir loolu ci la ba ak yàq yu bari yi nga xam ne moo ci nekkoon ndax maska yi loolu waaye diir bi ma fi nekk ba bi may dem diggante boobu lañ ko commencé la commencé bind luwaat te loolu yàggut mu jóge fi nga xam ne kon naar bi amutoon du ñu di ko jox muy bind kooku moom wóor la leen baatub talxiis bu ko ci indee soit mu juum ci kii bi wala mu waxe ko noonu waaye du caagee ni téere bi la doon def tarxiis te jàpp naa ne même moom bu ko bëggoon sax munu ko ndax loolu ni koy xamee rek ci lim bind lim bind bari na yàq lool yoo xam ne ni yaakaar naa ne bu àggoon foofa du demee noonu te bari na yàq lool xañ na léegi feeñatu ci waaye ku dem ca nusxal asliyee yi bu naar gànnaar bi da ngay gis yàq yi ma leen di wax yàq yu bare bare bare bare yàq axta naxwiya ay baat ay lu ne lu ne am am na ci loo xam ne nii bu njëkk noonu la ko nit ñi daan jànge def war a noonu la loolu sax bari na ñu nga xam ne xëy na seen interprétation ci téere bi looloo ko andi looloo tax defaraat bu njëkk ga son nañ ci lool même avant may dem keer ba nga xam ne moom itam damaa dajoon benn comité ñu di ko def pour taxriij bi ak yooyu waaye eh, sonn nañ ci lool mu doog a mel nusxa boobu nga xam ne au moins mooy bu njëkk bi nga xam ne ñëpp mën nañ koo liir mooy beneen bi loolu nag après eh, ci la ci la yeneeni nusxa am na nag bu Abdul Hakim di wax buñ mase bind boobu moom mosuma koo dégg waaw boobu moom xaj na ku gëstu mën naa ba nga ci am dégg waaye bu njëkk beneen bu naar ganaar bind dégguma ko xam naa ne daal liñ ci gis moom mooy mbindum sëñ Bachirum téere bi waaw téere bi nag gàllankoor yu mel noonu mën na ci am ci bu njëkk bi bi ko joxee euh, sëñ ba Kebe moo ne ko ndar te lu baree bari manqué ci wax wax nañ ko ci la commencé waat loola xam naa ne bi mu koy indi gëw ma ne indaale nusxal asli ba man sax jéem na maa topp boobu ba bañ ko jox ba mu ko basé jéem naa koo topp Euh, ci matbaa bi nekkoon Ndar euh, waaye xam naa waxtu woo fekk na mu dem fekk na amatuñ amatuñ jeexit yooyu na boobu foog naa dañ koy kii plaquette yi dafa mel ne lañ daan def waaye boo fekk na mu dem lu man ni xew euh, téere bi moom bari na ay ay ay yooyu waaye daal li am solo mooy jàpp ma ne baatub talxiis bi bu ko waxee dafa jublu ne dañ ko jox pour mu def talxiis téere jàpp ma ne am na waaw looloo tax lii Abdul Hakim wax laa gën a jàpp ndax diggante bi itam dafa gàtt sax nag diggante yi nga xam ne moom deful dul rek ni ko ñi nga xam ne man lool nee naa fekkewuma ko waaye li nga xam ne ñi ko fekkee wax nañ ko bu xëyee sëñ bi Bachir day xëy jox ko mu bind après ñu delloo si ko mu joxaat ko beneen jus ci mel ni waaye du lu lu nga xam ne moom da koo jox muy muy muy muy muy te itam dafa mel ne docteur xaw ngaa junjunee ay notes yu mu daan jël yu bëree bari ci taayu sëñ bi loolu mu am na mu alif bu ne day jël ay notes waaye téere yi basé wu ko ci ci dajale not yooyu wala jox ko ko mu di ko talxiis xaj na xaj na loolu lañ ci jublu waaye déedéet téere bi da ko taalif carrément waaw basé ko rek ci notes yooyu wala kuy taalif ku ne da koy basé ci ay. ay ay yoo jël ay note ay kii nga xam ne ci livre bi koy jëndi bu dee sëñ bi yenn yi ci ñi ko nañ ko nettalee yenn yi nangam ak nangam waaye méthode scientifique bu wóor la ko jaar waaw li ma bëggoon a wax ci kooku rek mooy côté talxiis bi moom moom jàpp naa ne sax mënut am waaw ndax d'abord sëñ bi andi ko woon pour mu corriger ko téere bi da ko andi woon pour mu di leeral lañ ko sax fay gi mu indi ko mu di ko bindal téere bi ndax booba yàkkamti na téere bi loolu la yàkkamti googu lu ci am solo la waaw yàkkamti na téere bi loolu tax juste yenn yi sax xam naa ne ci ci ci mujj gi mën yenn yi feeñutoon àggagut ci yoon xaj na àggutoon ci kii bu mujj bi mu jox ko ko ndax daanaka foofa la xaw a yem loolu tax yenn yitam yenn yi comme ni ko Abdoulaye kiy waxee lu am solo la def na ci baax bu am solo yenn yi ci biir la réere waaye yu ci bari ci yi ngi kii itam ñun ñoo ko indiwaat te itam di gën a doy kiimaan ñu ngi ko jëlee ci nus bo loolee ñi waxoon ne te noonu la demee euh, la nga téere ba ñu mollu woon ndar bi mu ñëwaatee nusxa benn képp moo ci des ba nëga ni mooy nusxa bi nga xam ne man sama mbind ca nekk mu doon ko wax du muraaja am na foog naa ne am na ko jàpp baatu muraaja déedéet muraaja man dama ko comme boobu bët yi xaj na kii mënut nekk di corriger boppam di bind man day wax bu ma liiree wax yàq gi ma def na nag nusxa boobu mujj def yu bari nag yu delluwaat ci téere bi ci yu ñuy def euh, ci boobu lañ ko gisewaat ba ci li manqué woon ci gànnaar ji am na lu ci feeñ boobu la feeñewaat am na beneen bu nga xam ne fi muy waxe eh, junjee ci bi ñuy dem Mauritanie te muy junju ci eh, ki tuuboon ci moom sant ga faal te yaayam aaye woon ko mu bokk ci ñu doon dem foofa la booba yem waaye joxoñ baa nga ca waaye joxoñ boobu ñëwut ginnaaw bi gis nañ ko mu ngi ci téere bi léegi waaye yooyu yëpp mu ngi jëlewaat donc jëlewaat ci téere bu njëkk ba li nga xam ne moom lañ doon móol te yenn yi des yi même ay alphaas sax yu nga xam ne xaj na ay yàq la woon fee gis nañ ko yoo xam ne nii eh, ci téere ba la jógee waaye yàlla dogal na benn nusxa booboo ci des waaw nga xam ne kon noonu la amee njariñ ndax kuy def mu muraaja yenn yi da ngay da ngay dajale lépp lu nga xam ne luñ ca bind nusxa nangam ak nangam loolu lañ loolu lañ basé woon bu mën a génne yenn yi waaye ba tey nag am na ci lu nga xam ne moom génn lool yaakaar naa ne itam lu mujj li muy muy shahadaat yaakaar naa ne loolu itam eh, am na lu ci nekkoon ci naar gànnaar bi effectivement waaye yaakaar naa ne àggutoon yaakaar naa ne àggutoon waaw doon daal la la demee te lu mat loolu tax li ma doon wax léegi lu mat a continuer la di ko étudier di ci waxtaan ndax dana tax xeeti yooyu yëpp di gën a leer di ci def ay baas luñ ci gën a def ay baax yooyu di gën di feeñ ñu gën koo mën a teg ci ay ay ay ay lu ci safe mawdu ay yee daal mooy mooy gën a ëpp solo eh, loolu tax Abdul Hakim alhamdulilah eh, waxam ji am na solo lool wax dëgg yàlla ndax yu ci bare bari yooyu muy leeral ci naari gànnaar yi eh, ak ak diggante yi mag sëñ Bachirou loolu euh, waaye surtout surtout ci li mu wax ci wetu talxiis kooku moom talxiis bu ko waxee bu ci jubloo loolu itam am na leneen lu mu ci jublu waaye du jagee ni loo tax li mu wax moom laa gën a d'accord ci ne loolu la ci jublu euh, ci baatu talxiis déere bi déedéet kooku moom c'est wër na wër na ma ne du loolu moom kon nag bu ko bu ko waxee xaj na ni ko interprété mu gën a wóor ndax moom ab diir ba yàggut lool lool te dafa ñëw ñu di ko jox muy bind te lool lañ ko jox lay basé waaw loola nag après nag mooy moo bind di maas ñoo tax yàq yi bari ci sëñ Bachir jotoon àgg ba man koo defal muraaja bopp nam doon tàmbali bële nga xam ne ba mu ko commencé gis ne loolu du sotti mu bàyyi ko bii itam yaakaar naa ne bu fekkente ne amoon na temps xoolal ko boppam dana ci dindiwaat yu bari wala dana changé waat yu bari bari ci biir ci biir ci ci ci surtout surtout sax euh, mina naxiya naxwiya ndax loolu yi rafa ko yi ku ku seet téere bu njëkk ba da nga gis yoo xam ne sax dalay waa da nga daal xam ne xam ne kii du woon kuñ joxu téere pour mu borom xam-xam bu nga xam ne da ko doon war a topp mën naa ne wala mu di ko wala mu di ko def tax déedéet nekku ci bindkat la woon da ko doon bindee noonu ñëpp xam nañ ne tam kilifa yi booba niñ amee kii ci mbindum naar gànnaar kaamilum naar gànnaar yooyu lu lu amoon solo la xam naa loolu tax kon woolu woon ko doon ko bindiloo waaye yaakaar naa ne bindkat képp la woon bu nga xam ne léegi feeñal na ne non seulement loolu waaye bindkat bu ñu doon fay la waaw waaye li ci am solo daal mooy lii lu am solo loo xam ne lu mat a continuer la lu mat a encouragé itam ñiy def ay ay ay ay buxuus lu domaine bu mën doon ndax sëñ bi livre bi ni nga ko waxee dafa yaatu te lépp nekk ci mu junj ci lu baree baree bare wax ci lu baree bare te lépp da koy basé ci xam-xam kon nag yi ci yi ci yi ci leerul wala yi ci gàttal kooku moom euh, dañuy continuer waat rek euh, ñu ngi def yu baax ñu di ci gën a waxtaane waaye munaqasha yu mel nii tarx yu mel nii eh, loo tax conférence bi yaakaar naa ne musuma fekkee fu ñu waxee ci minanul baaxi xadim bu leera nii bu amee solo nii kon nag loolu maa ngi leen di gën a encouragé doxin woowu ñu continuer ci di ci def ay baat di ci waxtaan itam lu mel nii xam ne xaj na mas nañ koo def waaye bii daal xam naa ne gëw ma ne mas naa amee nii kon nag lu lu lu lu mat a continuer la lu am solo la lu am njëriñ la lu amal njëriñ nit ñi la lu amal njëriñ ñun ñi nga xam ne ñu koy déglu lañ waaye lu amal njariñ ci liggéeyu téere bi la bokk kon nag noo ngi leen di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf kon nag euh, docteur daanaka yaa ko tàmbali kon nag ni nga ko waxee rek Euh, mu nekk émile bu xam ne ñu bari dinañ roy ci lool ndax domaine yu bari ma nañ cee def baas waaw comme ni nga ko waxee kon nag yaakaar naa ne itam ñu bari danañ la ci roy ba ñenn ñi def ci seen doctorat ñenn ñi def ci yenn bu xos yenn yi te dafa mel ne mi ngi tàmbali ndànk-ndànk kon nag jërëjëf yi mi ngi xam ne yaa ko tàmbali te muy tàmbali bu am solo lool bàgg ci loolu bu nga xam ne gën naa ku ko jàng ku ne danga nga gën a xam da ko gën a dégg dana la gën a leer da nga gën a xam nooy boo fekkente rek moom itam baaxis la dana gën a xam nu muy xoolee waa téere bi nu mu ciy jàngatee kon nag jërë ngeen jëf ñoo ngi lay sant bu baax a baax Ahmed si wax lool leeral na téere bi eh, wax dëgg yàlla gën naa tax kenn ku ne xemmeem eh, seetaat téere bi ba mën a xoolaat mi ne lu daal xadim te loolu rek doon amee jëriñ jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan ñu tàllal nal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox Seyxi Bamba jaarama jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara